ngeen koy daal di gis par rapport ak euh, li nga xam nekk moo di euh, ñoom maître Clédor maître Juan Branco euh, bref ñoom maître Tall li nga xam nekk moo di le pôle àndandoo ensemble benn li nga xam nekk moo pas bataaxal façon état que ni jamono ji mm, ñi ngi daal di exiger l'exécution de la décision de la justice iskan si xam mu am benn ko ñeexital woon nañ daal que mën a xaar vu que le président Macky Sall waxoon que ni toute décision dañ ko daal di appliquer le son ni ko juge bi daal exactement. mais loolu laa la wax. xam nga hmm. man ñun ñu ngi xaar sax euh, euh, la direction générale des élections mu am ay sanctions. parce que bu fekkee kaddu président de la république kaddu kilifa la il faut pas remettre ça en cause ay nit taxaw ne la duma ko jëfee ñu ngi xaar le président de la république mu sanctionner la DGIE parce que parce que xamal lu sanctionné c'est pas parce que on a on man peut-être ñun am problème avec la DGIE non la DGIE c'est une institution sénégalaise administration sénégalaise là, et c'est des fonctionnaires de l'État ñoo maintenant le président de la République mënul taxaw ne on va je vais faire tout pour qu'on respecte les décisions de justice ñom ñu taxaw la duñ ko respecter direction taxaw ne la duñ ko respecter faites que c'est des fonctionnaires de l'État war nañu d'abord le jour qu'ils ont pris pour ne pas travailler c'est un jour ouvrable c'est le jeudi le jeudi c'est un jour ouvrable waruñu taxaw un jeudi ñu ne duñu au nom de quoi ba avocats di def pétition alors que justice rendre verdict verdict ba pareil, mais il n'y a pas de sens amul sens moi, je suis pas d'accord avec des avocats qui font des pétitions pour respecter la décision de justice avocat warul signer une pétition pour le respect de la des décisions de justice dans ce pays mais non tout ça c'est honte c'est la honte dafa rousseau hmm. dafa rousseau ay avocat de signer une pétition c'est comme si loolu mooy wane ni que d'une part ni Sénégal du de yoon doute hmm. de yoon parce que normalement faites que justice la justice joxe na verdict. mais les avocats n'ont pas à signer de pétition pour que l'administration respecte la justice L'administration doit respecter les Dar. voilà ay ay voilà wala ay signer pétition donc si vous des signer ay pétition c'est parce que ils n'ont pas quoi d'autre à faire ils n'ont rien d'autre à faire et c'est honteux faire Rousselou, le pays bu pays le Sénégal bo xamantene ne chaque jour boo xëyee nga bako sa justice regarde aujourd'hui les gens ñun ñi sax mënuñu bako justice bobu mënuñu ko bako dans dans la sous-région mënuñu ko bako dans dans dans tout le monde parce que il y a des failles dans cette justice là dafa narmeelu te ñom ñoko diri ñom ñoko ñoko ñoo lom ñom les magistrats là ñom ñoo daaneel la justice sénégalaise nous ne pas, ñu donnons encore l'administration sénégalaise Nous, ñoo ko et vous parlez ni que da ngeen bëgg Sénégal développer comment le Sénégal peut développer sans sa justice comment le Sénégal peut développer sans son sans son administration amoo administration bu baax amoo justice bu baax hmm. nga ne da ngay développer nooy développer ah, espérons mooy lan bi ngay chaque jour boo dans la sous-région nga de nga sa démocratie nga bàkkoo sa démocratie wane beneen vitrine Sénégal au niveau euh, de euh, l'extérieur ni que waaye justice bu baa waaye Sénégal bu ñoŋ alors que ñooñu bu ñu ñëwee Sénégal ñu gis ni que ak ak yelleef doomu aadama yi respecté wuñu ko ci ci réew mi. lañ ko ñu ngi koy salfaañee. c'est clair alors c'est encore dommage c'est regrettable et c'est honteux dans ce pays. alors donc mi ngi noonu je vais rappeler que c'est une émission dina xam ne que euh, moo euh, tënku matinal bu tay alors dañu daal exactement si li n'a xam nekk la revue des titres madame le xëtu yëgle kaay daal di nga euh, seen ko xët tey bokk na si si gën a fës nekk euh, Vox boobu li mu daal di exactement Vox ak li nga xam moo di retrait de fiche de parrainage la DGE met un vent au mandataire d'Ousmane Sonko ay ayib defe nag jàpp ne lu nu mel wàllu injuste rek moo daal di nekk si ginnaaw borom nag mi ngi daal di sàkku ñu daal di li nga xam ne moo di exécuté décision bi nga xam ne itam mu daal jóge si yoon ak wàllu yonal la alors aussi ay avocat yu Ousmane Sonko nag jamono ji ñoom ñooy daal di euh, parle de mépris à la l'endroit de l'institution judiciaire maanaam dañuy daal di wax ak benn ko jéppi lañ si daal di àndal jëm si institution judiciaire ak benn ko maire

Euh, mi ngi si gu nekk tey mu daal ñu koy yeewoo euh, ak li nga xam ne moo di le quotidien mu daal di exactement le quotidien ak affrontement entre population et force de l'ordre Bambilor à feu en tout cas euh, démb nag ay manifestation leen fa daal di nemmeeku ay booru li nga xam ne moo di si guddi gi suñuy xool nag si lotissement 22 bi la daal di amoon waaye jàpp leen itam fu mu toll nii mairie ba nag lu ëpp saccagé nañ ko waaye itam ñu si ëpp am nañ si ay gaañu gaañu yegg si exactement si Ayib d'affaires Ayib d'affaires ne lâche pas la DGE ma nak kon nag Ayib Daffé euh, bàyyil benn yoon li que moy DGE le fait que euh, mu ne bés bu nekk dina fa dem pour xol euh, fan la dal di toll ci mbirum li nga que modi parrainage bi l'observateur mu daal exactement ak le retrait des fiches de parrainage pourquoi la DGE a a économisé le mandataire de son coup ni li nga xamné que modi l'observateur Mon mi jéem justifier cette décision bu DGE Néna, na tax day dàq ki nga xam euh, le mandataire bu Ousmane Sonko en tout cas euh, l'observateur observateur moom jàpp na ni euh, ba tey Ousmane Sonko nekkagul si fichier électoral bi le leader de lex ex Pastef n'est toujours pas sur le fichier électoral moo waral DGE dàq ki nga xam nekk Ousmane Sonko ak li nga xam nekk son mandataire donc l'observateur observateur mi ngi utal lay li nga xam ni itam def oui mais l'observateur l'observateur l' observateur wax hmm mais est-ce que l'observateur moo a à la place de la DGIE. Hmm. voilà est-ce que l'observateur moo war a wax ci place DGIE. Hmm. pourtant DGIE Ayib fait bu mu fa demee dëmb ba tey jii lolo. wax hmm. l'observateur moo wax loolu. Ousmane Sonko na pas ci fiche électorale électorale qui élect euh, ci donc d'accord d'accord mais donc ce qui veut dire que où nous L'outil qui est juge sabasifai Faye ils l'ont pas respecté. Hmm. Hmm. mais est-ce qu'il Non, non attends, la décision de justice est applicable de façon spontanée. Juge bi rendre na verdict comme ba de le préfet hmm. dar dar lañ ko C'est ça la décision de justice. amul lenen bonne est-ce que est-ce que est-ce que yone xamul est-ce que. est-ce que c'est de l'amateurisme amateurs yi ñoo xam est-ce que est-ce que c'est de l'explication question réponse la administration verdict la joxe nekk ci logique am bind ne leen Ousmane Sonko delloo leen ko ci fiche électorale bi ba pare jox ko ay fiche de parrainage depuis kañ la ñu rendre décision de justice bi depuis kañ hmm. ba tey jeudi vendredi nga ne Ousmane Sonko ba léegi nekkagul ci fiche électorale bi l'observateur moo mën a wax loolu hmm donc depuis le jugement ci jugement Ousmane Sonko bi ci kii kii bobu tribunal de ba légui vendredi le 20 aujourd'hui le 20 ñane Ousmane Sonko pas ci fichier électoral bi. Hmm, son observateur. ñu mel comme si dugal nit ci fichier électoral bi dafa jar dem ba France ñëwaat alors que machine la. da ngay dugg ci machine bi tapé insérer nit ki ne ne nekkagul ci fichier électoral bi hmm. alors l'observateur kese moo mën a wax lolu alors c'est clair ministre gu njëkk bu l'observateur dikkaat na si ñu yaatu que ni fu mu toll ni nak jappé ni tam li nga xam nekk moo Ousmane Sonko nek ko si liste électorale bi mo waral li nga xam nekk moo DGE nag démb mu daal di koy éconduire fa nga xamni tam itam mooy que euh, direction ba yegg exactement itam si leneen bokku na si xët gu njëkk bu l'essentiel l'essentiel du jour mu daal di exactement que ki nga xam que Modi le PDS attend toujours son candidat euh, Karim Wade nak batay ñu koy daal di xalé ni euh, fii Sénégal waye batay kenn gisagu ko alors yegg exactement itam si ki nga xam nekk mu di ba tey euh, si l' essentiel du jour mu daal dikk exactement si Ousmane Sonko Sonko euh, fait toujours le buzz même emprisonné euh, maanaam donte tëj nañ ko waaye Ousmane Sonko ba tey mi ngi def li nga xam nekk mu di le buzz fii si Sénégal mi si xër gu nekk bu nga xam nekk mu di l' essentiel dikkaat na si lu gën yaa topp ak wàllu wuri ma li itam

état bi mi ngi nekk si benn Mackino 3 maanaam bëggul jëfe li nga xam ne modi 3 yo xamni tam arrangé ko alors euh, lan na nga nga jàpp si nga xam ne modi une euh, le terme quotidien que ni le euh, refus d'exécuter des décisions de justice qui lui sont défavorables l'état dans le maquis du non droit ouais mais ben, ils n'ont pas respecté les décisions de justice mm. lolu moo ne fang ça mm. à dire que li mëno ko wutal benen tour Serigne fallo le témoin lu mu bind loolu la ñu constaté actuellement au Sénégal ni que am na benn décision de justice bu tukkee ci tribunal bu Ziguinchor administration taxaw lànk nee ne du ko jëfee loolu mënoo ko wutal beneen tour même bu fekkee euh, euh, observe l'observateur observateur mu ngi bëgg layal loolu di hôtel ay lay di utal ko beneen tour mais il faut dire le il faut prononcer il faut euh, appeler le chat par le chat loolu la mu constaté au Sénégal ni que am na benn décision de justice

appliqué appliquer partout dans l'administration parce que ça ne leur arrange pas peut-être euh, ci un camp bi la on, euh, arrangé somme ñoom waaye ñooñ Ousmane respecter au nom de quoi c'est ça l'information aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans, la désinformation euh, comment de l'observateur d'une oui, euh, parce que Ousmane Sonko n'a pas Est-ce que réellement Ousmane Sonko a gagné le fichier électoral Bah, il dit qu'il n'a pas été inséré. Bon moment, là, il gagne Ousmane Sonko qui le Il faut préciser aussi le préfet accusé de réception. Il y en a eu à l'eau. Ah, mais. Euh, non, non, non, attends, attends pour m'accuser de réception. Est-ce que en a wax ni le préfet n'a pas accusé de réception Voilà, merci. Lolu nga wara ñew. Amaguñu lu firndel ni que amoñu luñu fen lu firndel ni que peut-être le préfet a, a, a accusé de réception. Hmm. Nit bu wax lolu lay wax. Mais do taxaw radicaliser carrément ni que le préfet n'a pas accusé de réception. Lolu ku ko wax da nga wat da nga nek di wutal lay. Euh, lolu lo xamantene ñom ñoom sax les concernés la DGE amul sa amul amul courage wala amul sa preuve bu muy génnee teg ko ci table bi lu warata refi bobu ba légui maintenant bu féké dafa am dans la foulée la direction générale des élections a des avocats yu mel l'observateur wala ñu mel ni peut-être le quotidien Euh, ñoom mën nañu joxe ay verdict peut-être mën nañu joxe ay déci comment dirais ay information bu leen neex ni loolu moo war a tax euh, DGE ba léegi mënul jëbal ay bu dafe ay fiche de parrainage donc mi ngi noonu euh, par ak wàllu mel Euh, ministre de si témoin par rapport à quoi wunu en tout cas ñi xaar dina xamné que modi le préfet peut-être du ñak dina accusé de réception jëm ci li nga xamni ni te moom la ko juge Samba di bindal yo xam exactement ak refus arbitraire de remise de fiche d'apparentage au mandataire Ousmane Sonko quand la DGE hors la loi viole sciemment l'article L47 du code électoral manikon ni gi nga xamni ni bañ ko dal di lu dal di ñeel li nga xam ne moo décision bu li nga xam ne moo DGE fa nga xamni tam modi décision justice justice fa nga xam ni itam mooy zone ma ne kon loi bi mi ngi di violer article 47 bu code électoral bi nga xam ni itam dafa daal di euh, joxaat Ousmane Sonko li nga xam nekk moo di euh, pour pour mu daal di langue politique bi exactement Arfam alors réew mi quotidien mu daal exactement ak euh, retrait de fiche de parrainage suite à la décision du juge le mandataire de Sonko rentre.

Ousmane Sonko. daal di yegg si si euh, euh, li nga xam que mu ni bu 24 heures mu daal exactement ak la DGE sur le fil du rasoir man ni kon nag ba tey ji euh, amaguñu dara lu jëm si wàllu wunu mel instant bi nag ñi daal di ñaan li nga xam que moo di que la justice soit faite daal di yegg exactement itam si xët gu njëkk bu révélation quotidien mu daal di exactement ak Youssou sur la présidentielle un maître

mënu ko daal di jox et que bis ba ayib ñëwee rek du ko mën a li nga xam ne que moo di jot en tout cas l'observateur nous a vendu li nga xam ne que moo di la mèche en nous disant que ni Sonko moo nekk si liste électorale yi et que je pense que c'est une révélation de taille bi nga xam ne itam def na ko malgré ces décisions bi nga xam ne itam. na mais mais mais mais euh, sëñ Fallou. non DGE la voix de DGE wala bataaxal buy jógee ci DGE moo crédible l'observateur mën na wax lu ko ne c'est pas c'est pas amatul mais pourtant la DGI en 2015 le jugement de Karim était définitif il a usé tous les voies de recours mais les élections de 2019 mais joxnañu nañu euh, Karim de parrainage hmm. il nit bo xamanté dañ la ne peut pas voter mënul fal ken mënul fal fal parce que figurez-vous sur les listes électorales parce que jamono Bobu, il a usé de toutes ses voies de recours <laughs> Ngen Djoko, de fils de parrainage alors que Ousmane Sonko c'est le contraire non seulement il n'a pas usé toutes les voies de recours mais le tribunal bu Ziguinchor c'est na ko nee leen Len, leen kii eh, eh, mais ñuy taxaw légui ba légui di l'Ank. au nom de quoi lii mo lay woné encore Sénégal fi amna ño il ñom ne ñoom dañoo dépassé yoon ils sont au-dessus des lois lu leen def ils sont au-dessus de la constitution lu modifie la modifier constitution bi même bu que jaarale ko ci ay dialogue def lu leen neex Sénégal L'Olu Moy Sénégal bu tey bu ñuy que bu pour c'est ça le arrange pas ñu taxaw ne la force restera à la loi yoon la ñuy appliquer sa kaw maintenant bu fekkee yoon boobu moo appliqué au nous diñ ko respecté duñ ko nous mm. ñoom ñu ëlbati ko daal di fété ci kaw yoon bobu mm. voilà comment on manipule aujourd'hui les lois dans ce pays voilà aujourd'hui comment on manipule la justice sénégalaise voilà aujourd'hui comment l'administration euh, taxaw ñu dañoo may administration dañoo may doole administration de cette telle sorte que administration day taxaw di jiiranteel mbag avec la justice sénégalaise voilà où nous en sommes administration di taxaw di défendre, avec une décision de justice. avec ay décisions justice nous foofu lañ au Sénégal hein. parce que ça ne commence pas de la direction générale des élections hmm. ça ne commence pas là-bas l'administration pour bu en jeu c'est l'affaire de Ousmane Sonko c'est pas là-bas on a vu ici des des des préfets ou bien de euh, commandes de de Ngor bille ay bataaxal jaaraale ko ay jëppal jaaraale ko ba ci mairie Dakar tout ça des circuits là pour une, éliminer une personne. Pour que Ousmane comme Mobanya n'est que candidat. Hmm. Voilà l'administration au Sénégal aujourd'hui dont on parle. Hmm. donc Donc, lu melni direction générale des élections, d'où l'Union bête. Bête nous. L'on l'Union bête. C'est euh, euh, une pratique qui depuis 2012, fi ah même ça depuis au-delà de 2012 c'est clair, c'est clair des élections sénégalais sénégalais exactement la ak li objectif du euh, parrainage entre filtre et élimination d'adversaires man les juges de la sont contre la loi sur le parrainage une violation de la charte africaine de la démocratie ma ni kon nag li nga xam ne tribune di kan exactement si boobu li nga xam que modi di dal naa si daal la peut être buñu dal di wala mën éliminer yenn si li nga xam ne que moo ay adversaire politique di tribune di kan suñu gën a yaatoo papo ak wàllu wudu mel mi si xët gu njëkk bu xëtam gu njëkk alors yegg exactement itam si avocat Ousmane Sonko daal ko jiitale si ki nga xam ne que moo di maître Clédor ñoom itam ñi dal daal di hausser le ton par rapport ak euh, état bi le fait que mu dal di bañ a euh, euh, appliquer décision bi nga xamni tam jëm ak point exactement euh, Sidiki Kaba le ministre de l'intérieur Sidiki Kaba ferme ses portes à Sonko. alors euh, Sidiki Kaba ferme les portes à Sonko ay dafa de justice nak deum de len di buntu ba avocat Ousmane Sonko yi ngi cette décision, de la, euh, cette décision de la justice va jàpp le ministre de l'Intérieur, intérieur jamono ji na ni euh, ki nga xam nekk moo di Sonko mënugul jot yooyu de li nga xam nekk fiche euh, point actif mu euh, Sidiki Kaba ferme les portes à Ousmane Sonko alors ñu daal di alors. oui mais quand attends 30 secondes le ministre Sidiki Kaba ferme les portes à Ousmane Sonko en tant que ministre de la justice comment de l'Intérieur mais est-ce que le ministre de l'intérieur Bobo Sidiki Kaba il est au-dessus de la loi ou bien il ne fait qu'il doit respecter les décisions de justice faut la Ce c'est pas un ministre de faire quoi que ce soit même en étant ministre de l'intérieur ici oh, eux ils respectent pas la justice sénégalaise Ils la justice bi gis nga booy bu demee ba sénégalais justice c'est parce que ñom ñoñu ñoo faalewul justice bi voilà les autorités xam nga yegg naa la wax les autorités ñom ñoo faalewul justice bi te ba pare ñom ñoo saboté la justice sénégalaise c'est pas les sénégalais ce sont eux les eux ñom ñom autorités yooyu hmm. ñom ñoo saboté la justice sénégalaise regal fu ñuy wax tey ba ba tey ci justice bi ministre taxaw di naan euh, euh, euh, duñu jox ay fils de parrainage donc ce qui veut dire que il n'avait pas à aller jusqu'à Ziguinchor pour faire ce procès là parce que amul njëriñ bu fekkee ñoom dañoo yor seen propre loi ñoom ñoom les autorités là donc jarul ñuy addu ci justice nañuy boxañ justice bi sànni ko poubelle ñoom ñu wéyal seen seen justice mm. parce que bu fekkee justice boobu moo tënk ñëpp

nekk exactement itam ci ay état sall ay salle sall nag jamono jii euh, jàpp na ni itam faaw mu di désengorger li nga xam nekk moo prison yi mu dal jàpp ni faaw mu corriger li nga xam nekk moo les mots de la justice dem nak euh ñëw na ci quatre grands axes de sa mission exactement est-ce que jàpp na ni euh, fii ak six mois woon na di war corriger loolu lépp. alors ñun loolu la ñuy xaar ci mom heureusement mom waxal nako bopam moy hmm. manam les détentions yi yàgg mom moom dina